mbokki internetu chrono actu dal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko doore ak biletis mi wàcc ci Sénégal lamin Diack moo daal di génn àdduna ni ki dëmb ci guddi ginnaaw bu mu amee lu tollook juróom-ñett fukk ak juróom-ñett ci ay at moom moomee nag newoon na fi njiital i 2 senegal Sénégal daal di ñàkk ab kilifa bu rëy bu kenn munta natable dimension am bu ñu sukkandiku ci njiit mi di Macky moom lamin Diack nag di fàttali ne musoon naa doon maire bu Ndakaaru newoon itam député ministre laata muy doon njiital I2AF naka noonu itam Ousmane Sonko njiital Pastef daal dinay addu ci génn ko àdduna Lamine Diack muy xamle ni ñoom ñaar sax daanaka déggoo woon nañu ñaari weer ci ginnaaw ngir ñu mën a gisee toog waxtaan waaye nag wér gi yaramam moom Lamine Diack moo mayewuloon lu ni mel Ousmane Sonko di fàttaliwaat ni Lamine Diack moomee ab inspecteur des impôts et des domaines la woon bokk na sax ci ñi nga xamante ne daal ci jiitu ci liggéey bi Ousmane Sonko ci ab mbindam ci page Facebook am daal dinay xam le ni nekkoon na patron des impôts et domaines ci Ndakaaru te ñi nga xamante ne ñoom la àndaloon ci liggéey bi ñoom ñëpp luñ ko seedal moo di ba muy dem sakkalul pexe benn pepp suufa fi ci Sénégal desandi ak génn ko àdduna Lamine Diack ba léegi ak ki nga xamante ne moom mooy Souleymane Bili pay dëkk fii ci Grand Yoff nekk itam ku ñu ràññee lool ci wàllum sport ci këru diine yi itam daa dina yëkkati ay seede jëmale ko ci Lamine Diack moom mi mu jàpp ne tey bu doone lu mu doon yàlla ak moom la ndax bi mu amee juróom-ñetti at la ko tàmbalee tàggat mu jàpp ne ab doomu Afrique la woon mi woon ngir aar continent bi ñu teewlu ko moom Souleymane Bili Paya. Je n'ai eu qu'une chance, c'est d'avoir rencontré un grand homme très tôt. À l'âge de huit ans, j'ai rencontré un homme qui un monument un homme qui est un intellectuel de l'universalité, un homme qui était un sportif émérite, un dirigeant inégalable. Cet homme-là qui m'a façonné à partir de 8 ans, qui m'a éduqué, c'est le président Lamine Diack. Un très grand homme qui a fait de moi ce que je suis devenu. Voilà cet homme qui nous a appris le sport en tant que valeur très jeune. mu jàngal ñu dugal ñu ci équipe bu tudd foyer France Sénégal daan répété ci sunu nopp benn devise n'êtes pas venu pour taper dans un ballon ou marquer des buts. Vous êtes venu pour vous former à l'école du Yehu yeete yaru il nous a appris à partager il la tué en nu de le début le mois et il la cultivé en nu le nu mu ne ma une équipe ne peut pas être une équipe bu fekkee c'est des mois yu ñu regroupé mais il faut tuer tous les mois chaque mois pour qu'ils revivent dans le nu bu boobaa que l'équipe gagne ou ne gagne pas le sport a gagné le collectif a gagné ku am chance ku toll noonu un intellectuel de cette dimension yar la yore la ci âge huit ans je portais sur mes épaules avec fierté ses chaussures de football moom ak le gardien de but du FAS Sénégal qui s'appelait Nabi Silla kenn daawul laal seen i ma maa ko daan wékkoo ànd ak ñoom ñu téye sama loxo ñoom ñaar may dugg fièrement au parc municipal bu champ de course c'est cet homme qui m'a appris à vivre dans le monde du sport c'est lui qui m'a fait découvrir que le sport n'est pas pour taper dans un ballon mais le ballon est un prétexte pour que nga dugal ci xale yi des valeurs de connaissance de soi valeur de maîtrise de soi valeur de dépassement de soi pour pouvoir maintenant faire le surpassement et aller vers celui qui nous a créés. Voilà Lamine Diack moo tax j'ai versé des larmes en silence à chaque fois que j'ai pensé à lui la chance que j'ai eue mooy jaar ci loxo kooku Sénégalais yi xamuñu kii est Lamine Diack il faut le trouver à Monaco à la gouvernance mondiale xool ni mu mel ci monde bi pour nga xam kan mooy Lamine en valeur en personnalité en dignité et la manière extraordinaire dont il défendait l'Afrique ba dema réunissait l'Afrique au sommet de l'IAF. Aucune personne ne pouvait plus devenir président de l'IAF sans l'apport de l'Afrique. Qui c'est Un fils de l'Afrique. Il a fait la même chose au CIO. Il a fait la même chose dans les différentes fédérations football, athlétisme et même la CAF de l'athlétisme au niveau africain. wax ci Gérantis di génn ko àdduna njiital association des managers et agents d'artistes bu Sénégal AMA Moustapha Goudiaby ci àjjuma ji la génn ci ab malaise ginnaaw ginnaaw bu mu tàggatoo ci Moscou doonoon na ab producteur naka noonu itam ab manager mu liggéey ak ay yu bëri fii ci Sénégal la ñu mel ni Kumba Gawlo Seck Assane Ndiaye Mapenda Seck Abdou Guité Seck ak ñeneen addu jëmale ko ci dem ak dikk gi jafe-jafe yaa ngi cee woy ba léegi ndaxte gerew baa ngi woyandi ba léegi ginnaaw ba nga xamante ne transporteurs yi ak gouvernement bi déggooguñu ci bu kaddu Mansour Faye ci janoom ak taskatu xibaar yi daal di jël lépp xëpp ko ñi nga xamante ne ñoom ñooy yi mu jàpp a saafara ci seen tawata ñu teewlu ko moom Mansour Faye di joriñ bu ñu dënk wàllum dem ak dikk gi yaa jox nag gouvernement bi gis na ni cadre bi nekk ñu ci taxawaay waxtaan te loolu ñu ngi koy maanaam déplorer wone leen pour ñu waxtaan nanguwuñ ba fii may wax ak nangu nanguwuñu ñëw pour waxtaan ci mbir mi nga xam ni moo fi nekk indi jafe-jafe ci dëkk bi ñu ni léegi corridor bu nekk ñetti poste de contrôle routier moo ci nekk bien que xam nañu Sénégal ah maanaam dëkk yi ko dafa bëri jafe-jafe wóorul waaye dañuy chaque corridor dañ fay def trois postes de contrôle te tey jii boo demee ci corridor Dakar Bamako boobule maanaam commencé ñu mettre en application loolu contrôle yëpp wàññeeku na d'ailleurs pour wax joo ñuy wax engagement boobu ñu jël ñu mën ko tënk ci kayit am na benn arrêté ministériel boo xam ñu ngi koy defar te dana pare lu mu yàgg yàgg dana dana dana teel a pare te ministre yi mu concerné yëpp daañu signé arrêté interministériel boobu ministère de l'intérieur dana ko signé ministère des forces armées dana ko signé ministère finance dana ko signé ak ministère des collectivité territoriale dana ko signé suñ ko signé arrêté interministère boobu ñëpp lay engagé te arrêté interministériel boobu ñu ngi koy defar te dana pare ci ay fan yu néew wala peut-être ci ay heures yu néew. am na beneen pañ boo xam ni waxtaan nañ ci surtout au niveau du ministère moom la gën a concerné mooy lu ñu wax la concurrence déloyale gën a fexe ba nga xam ni ñoo ñuy def transport irrégulier ak illégal soit ñu régulariser wala ñuy fexe avec le contrôle bu ñu mën a def transport boobu gouvernement de Sénégal gis na jafe-jafe ak tolof tolof yi nga xam ni grève bi moo ko indi ñu waroon liggéey liggéeyuñu ñu waroon dem faju ji fajuwuñu ñu waroon dem commerçant yi liggéey de kenn demul dem dëkk dikk bi maanaam dakk na boole ci nag maanaam yàq-yàq bi nga xam ni am na ci ñi nga xam ni dañoo bëggoon liggéey su ma nekkee di continuer di liir xëy na loolu maanaam dana jafe waaye nag vraiment di regretter conséquences yi nga xam ni grève bi dafa ko indi ci économie dëkk ci koom dëkk bi loo xam ni lu diis la ci bitim réew ñu dem ba fale ci Gambie jàppale ne kon ni ki ëllëg ci samedi gi la ñu fas yéene soobu ci seen jongante tànneef njiital réew ma juróom benn ci ay candidat ñoo fa daal di samp seen i ndënd ci fàttali lu toll ko juróom ñeenti téeméer ak juróom benn fukki junni ci ay électeurs lañu fay xaarandi ngir ñu dugg ci mbañ ngàcce ya mën a tànn ku ñu bëgg mu daal di leen jiite ci juróomi at yu ñuy dégmal Adama Barrow mooy jamono jire njiital réew bu Gambie ginnaaw bu mu amee ndam ci kaw Yahya Jammeh ci élection yu ñu weesu ndar keppe ko wàllum fësal favoriyam ci Coupe d'Afrique des Nations bi ñuy dëgmal moom mi nga xamante ne daat nay def ay réew yu bëri fii ci Afrique jëmale ko ci tàggat leen daat nay jàpp ne réew mi nar a gagné bi la Coupe d'Afrique dafay doon ab réew ma nga xamante ne daa am ab gardien de but bu baax te taxaw lool te mu jàpp ne Edouard Mendy ab chance la pour Sénégal te lépp mën na jaare ci moom ngir Sénégal mën a am ndam ci bi la Coupe d'Afrique bu ñuy dëgmal ci weerum janvier mbokki internautu Chrono Actu lii lañ leen indoon ci xibaar ni tey jilee dig daje ci geneen jotaayu xibaar jàmm